bi mooy gént mm-hmm. communication la mm-hmm. ak rendez-vous communication ak rendez bu ñu yónni Yàlla sallallahu alayhi jox la ne maa ngi dem waaw waaye deewu maa ngi fi su ngeen ma soxlaa jaar leen ci gént ñu borom martaba yi ndaw yi ku rëcc ba jaar ci gént gis ma xamal na man nga gis dëgg la rendez-vous la mm-hmm. kon gént am na jariñ képp ku gént gis yonentu moom nga gis dëgg boo ko gisee di nga boo góorgóorloo dëgg la te ku ko gis texe nga texe goo xam ne texe yi du ci topp maanaam mucc nga mucc goo xam ne uh-huh. ñàkk mucc dootu ci toppati maanaam mënatoo def uh-huh. ci àddina uh-huh. bàkkaar boo xam ne dana mën a mëdd tiyaabo yi booy ci gis yonent maanaam texe nga daal daal baal na la xool na ci yow dem dootu la xoolati beneen bët képp ku gént gis yonent bokk nga ci ñooñu allahu akbar kon xam nga gént am na jëriñ bu baax a baax a baax gént rapport bi mu am ak nit mooy message la boo xam ne ñetti ñii ñoo koy def ci ñoo koy def wala ba ñeent mhm. mooy aalamul arwa mhm. danañu communiquer ak nit ki mhm. ñu nekk ci aalamul arwa danañ wax ak nit jaarale ko ci gént dëgg la ñun ñi nga xam ne ñi nga danañ wax ak nikki mooy ñi nekk barzaq waaw danañ wax ak nit ko ci gént jinne yi danañ wax ak nit ki jaarale ko ci gént yaa ngi dégg suñu borom dana wax ak ko suñu gént jaarale ci gént donc jinne yi danañ wax ak nit ki mu jaar ci gént nit ki dana nit ñi danañ wax ak nit nit ki mu jaar ci gént ruuxu yi dinañ wax ak nit ki mu jaar ci gént nit ñi nag yonent yi ci lañ bokk ñu dee ci lañ bokk ak ñuy dund tamit am na ñoo xam ne dinañ wax ak yow uh-huh. mais ci gént dañuy bàyyi ba gént ñu wax ak yow dëgg la mooy mooy moo tax de gént naa diw de gis naa ko mu ci ci gént dem ci guddi muy def nangam ak nangam ak nangam wala gént naa diw muy wax ak man fekk kooku mu ngi dund yaa ngi dund am na koo xam ne moom da nga ko gént fekk mu ngi nekk àllaaxira dee na moom ma nga àllaaxira ma nga ca barzaq dee na nga gént gis ko mu wax ak yow uh-huh. te lam lay wax soo ko jëfandikoo da nga gis ne lam lay wax lu wér la da nga gis gént koo xam ne ab yonentu lay gént uh-huh. wala mu gént saalihiina wala mu gént benn uh, uh, uh, xut bu wala wala yu yàlla mu mag uh-huh. am na koo xam ne dana gént ba àgg gis gént gis yàlla ci gént yàlla suñ borom. waaw man bokk naa ci ñi ko gis ci gént. allahu akbar gannaaw boo xam ne Seex Ibrahima dimbale nañu bañ gis ko ci lu dul gént. waaw waaw. radiyallahu taala anhu. yaa ngi mhm. gis naa yàlla man ci nelaw. allahu mhm. te du benn yoon du ñaari yoon. allahu dégg. gis naa ko ba may xale. booba maa ngi am. ay fukki at ak lu topp daal ci laay toolu daal fukk est-ce que mat non bar fukki ay juróom fukk lu lu lu lu jëm ci boori fukki at. ndax jamono balaa juróom-ñeenti at dem suuf. foofa laa ko géntee xamatuma na juróom-ñaari at la wala juróom-benn at la wax yooyu côté yooyu laa ko géntee ndax maa ngi fàttaliku ba ma xamee fukki at ak léegi. man ba may am ñetti at. ak léegi fàttewuma dara si sama dund. waaye benn feebar boo feebaroon. feebar bi métti moo yaakaar yàlla laa gis ci sama bët yii mu ne ma bu ragal dara doo dee maa fi doo dee métti ne waaye muñal rek yàlla suñ borom man maa ko gis ak samay bët loo xam ne du nelaw booba maa ngi feebar mu métti lool uh-huh. wala gis yàlla ku ko yàlla mayul rek da ngay xam ne yow bokkoo ci dëgg la dégg gént naa gis ko uh-huh. ba ma ko gisee ci gént tamit uh-huh. yàlla suñ borom laa gis te xam naa ne yàlla laa gis ñaari melo gént gis ko ci lu dul nelaw gis ko ba pare wëlbatiku waaw fi góor yàlla yi di jaar waaw ba xàgg ci bay mën a gis yàlla ci lu dul nelaw ma xaw fa jaarale ko ci yoonu Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu taala anhu dëgg la kon gis yàlla gi gis yàlla moom xam na kon gént rapport boobu la am ak nit beneen bi ci topp mooy nit mm-hmm. bu nelawee gént mm-hmm. ah dafa war a fexee géntam mu ñu firil ko ko su ko mënta firi na wut ku ko ko firil xam nga sët yu daan nañ dem ci moom di firilu gént ci moom waaw ci sàmm yemale takk takk takk njëg dem di firilu ji gént waaw ca sët yu donc kon xam nga gént am na njariñ gént moo waraloon yonent yàlla Muusa ñu bëggoon koo rey yàlla musal ko ndax gént giñ géntoon na Firawna na am na safara wu takk takk tàkk tàkk taal dëkk bi. Mhm. taal euh, euh, euh, nguur gi. waaw ñu ne ko am na xale bu góor bu judd boo xam ne mooy demee si nguur ga. gént moo waraloon mu ne képp ku judd nañ ko rey. allahu dëgg la. ba yonent yàlla xaaroo na ba mhm. gaa yi demee ba wax Firawna ne ko. waaw na moom mu nga jógee woon dëkk bu ñuy wax Asbahana. Asbahana fa la jógee woon jëm jëm fële Saam. la ko am na firxaanu ju njëkk joo xam ne moo ko njëkkoon uh-huh. boo firxaanu jooju deexee lañ ko far moom parce que moom ci ay pexe la ñëwee woon ci dëkk ba <laughs> ba muy dëkk ci dëkk ba boo demee taf ci Cheikh Ibrahima bàyyi ko fay nettali ko leeral uh-huh. ba muy dëkk ci dëkk bi dafa fekk gaa yi am mbas mu rëy jàpp leen moom mu dem ca uh, duggoo ba képp ku bëgg a sil ñëw uh-huh. mënu la doog a lu dul da nga maa fay ñu fay ko mu suulal la si ni ba mu am ay xaalis yu bëri mu wax buur bi na ko gis nga dajale naa xalal ji yëpp ci sa dëkk bi te yëgoo ko pour wane na la sa dëkk bi ni mu ñàkkee sécurité ak ni mu ñàkkee kaaraange uh-huh. man soo ma faloon tey uh-huh. man dinaa la defaral sa nguur ya buur bi fal ko mu defaral ko sécurité réew mi moom buur bi gis ne kii ku baax la uh-huh. ba mu dee ci lañ ko jël jox uh, uh, nguur ga moom mu utu ko daan na toog ñeent fukki fan du soog a dem toilette daan na lekk gëlëm daan na dundee gëlëm par bés te ñeent fukki fan lay toog soog a dem oh, man nit ñu mag njëkk ña benn affaire la ñu. ñeent fukki fan nga xam ne ñaari fan rek bu ko ni toogee dem toilette 40 jours la doon toog soog a dem toilette. allahu akbar Firawna Firawna moomu. Uh-huh. ba nga xamee ne gént nañ wax ko gént ga mu ne léegi nañ rey ñëpp kuy góor na a bañ demee ba banu Israël la toog ba yàgg ñu ne ko ñu ngi am màgget kat suñu dëkk bi amatul xale yu utu mag ñi. Uh-huh. mu ne léegi ñuy def ñu ne ko léegi nañ rey ci at mi at bi ci des ñu bàyyi. at mu ba ba at mañ waxoon ne la ñuy bàyyi ca la na juddu yonent yàlla Haaruna moo mag yonent yàlla Muusa xat ma ca topp ca la Muusa juddu mu yonent yàlla Muusa xatam ray ma ca la juddu ba ko ba ba ko yaayam ëmbee mu war mu war a juddu mm-hmm. léegi jigéen ñi dañ leen a waxoon ne képp ko ëmb ci dëkk bi mm-hmm. na leen ko suivre